nakalat la mbir yi ba ñu xey un bon jour gis ASC Mbourkat daa di affilié au niveau de l'ODCAV de Thiès. waaw xam nga Mbourkat bo dee xool c'est un nouveau quartier bon quartier la bo xamanteni bi mu commencé bi mu nit ñi commencé dëkk ci mo ngi départ depuis 94 vingt quatorze quatre bon man mun naa ni bokk naa ci ñi nga xamni peut-être ñoo njëkk habité quartier bi da may ñëw dans le quartier Mbourkat mu naa pratiquement fekk mo fi kenn quartier Mbour 3 rek bi mu fi dëkk trois maisons habitées la fekk.

vraiment vraiment biñ ko waxé population bi ñëpp dañ koy adhéré jeune yi nak dox ci vraiment ku melni ni Badou SG moy SG ASC e bi ak yeneen jeune yi ñu porté wu volontaire jëm ba fexe ba lijjanti récépissé bi lijjanti lépp bi ñëwee ngi taxaw ku ñu dem assemblée assemblée générale après bon ci la ñu lancé lancé lancé lancé ASC e bi dem déposer au niveau de l'ODCAV vraiment ñu accepté ñu ko lépp. alors ngeen démé au niveau ci structure bi ODCAV war affilié appuyer. Hmm. yóbbu dossiers yi naka lañu euh, réceptionné le Nima Bon, vraiment, la ni dañ avons réceptionner avec, euh, bon, avec tal mais avec aussi bon, sérénité. Nous avons donné pour nous, comme zone ñu nous ni vraiment gis nañ ni zone la boo xamante ni il y avait neuf ASC mais ñun bi ñu ñëwee bi ñu accepté lee loolu dañoo gis ni vraiment am na lu mu apporté lu bëri ndax non seulement la population mu ngi ko doon xaar mais la jeunesse aussi mu ngi ko doon xaar ba tax na aussi bi ñu ñëwee aussi euh, ñom ñu xol potentiel yi nga xamni nek na fi ci encadrement bi ci euh, ressources humaines bi ak vraiment quartier bi ni mu nekké euh, ni mu nekk quartier bu mag avec vu aussi sa situation géographique xamna peut-être avec li ñu xol ak sen enquête yi ñu mën autour de l'ASC gis nañ ni quartier boobu war na mën a am ASC ndax c'est un grand quartier mu Mbourtouba faire partie des des plus grands quartiers de caisse d'habitude ñi gis ni les quartiers résidentiels. Hum. euh comparé au quartier populaire. dafa ah. xaw a am une grande différence. Tu vois, li ma ko mën a waxee euh, tey jii bu ngeen soxla benn mbir. na ah. xawa jafé ci quartier résidentiel contrairement à quartier populaire yi. Ah. que ni porte à porte mën nañu récolter li ñu bëgg ci côté bobu est ce que yéen ngi sentir véritablement les populations de Mbour Mbourkat ñu impliqué wu euh, ci ASC manam maanaam bu ngeen soxla gis leen ci wàll. bon en premier lieu peut être ñun duñu quartier résidentiel.

autour de la ñëpp ci vraiment bonne volonté ñëpp ngi ci vous ku ci nekk yaa ngi bu sa xalaat bu sa poste bu voulez bu bu action def ak la population ñëpp ñu ngi japp vraiment ñëpp ci japp vraiment. benen bi top moy mooy que ni d'habitude dañu am habitude di gis ni quartier yu bees yi. Mhm. Euh, nit ñi dañ fay ñëw des mhm. anciens footballeurs des anciens dirigeants am nañu expérience. Mhm. motax euh, yu ci bari bu ñu gisee ñu taxawal rek. day doon lu yomb ci côté boobu yéen euh, yomb na ci yéen wala yombul am ngeen ño xamante ni yàgg nañ nekk ci mouvement associatif wala ci football bi. bon yomb na yomb na yomb na vraiment ndax bo boo dee xool mbuurkat dama dañ naan équipe bu bees la ci ñëw ñëw bu ñëw dugg en dugg nawetaan mais vraiment ñi nek autour de l'équipe ak joueurs ki nek bëri na ñoo xam ne yàgg nañ ci mouvement nawetaan waaw ndax ñun ñëpp boo dee xool dañoo jógee dañoo jógee ci yeneen quartier man ku mel ni man maa ngi mën naa ne wàll daan laa juddoo fa laa yoroo fa laa xamee lépp bon le kër ci boo dee xool même chose gars yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk autour de l' équipe vraiment c' est pareil boo dee xool daal autour de l' équipe am nañ ressource humaine boo xam ne ressource humaine bu taxaw la te vraiment bi ñu ñëwee tamit côté joueur amuñ ci problème ndax jeunes yi nga xam ne dañu footballé fubale fere yeneen yeneen zone bi ñu déggee ni seen kër tëgg na ñoom ñëpp dañoo nangoo bàyyi lépp ba pare solo dara

mais loolu yëpp rek ñu koy sant jeunesse bi di xam ni vraiment Mbourkat Mbourkat calcul boo xam ne non seulement il y a des jeunes engagés il y a des pères de famille et des mères de famille engagés di ñu jàppale guddeeg bëccëg ci lépp nag ci lépp lu ñu dem mun naa ne daal autour de l'équipe ñun sentir ñu yenn problème yi ndax ku nekk yaa ngi seet fi nga mën a jàpp nga jàpp ko waaw ah. bu ñu ñëwee tey ci aspect sportif hum. euh, rare ñuy gis équipe bu formé première année mu ñëw hum. def exploit. Hum. donc gis nañ ni. pour quatre c'est deux sorties de victoire. mi ngi léegi ci euh, wa dëgmal 16e de finale coupe du maire. alors euh, au delà des de de de vos deux victoires. est ce que ambition yi mën nañ xam véritablement ci coupe mère bi ci championnat zonal yi lan la ak tamit euh, yeneen euh, euh, compétition yi nekk seen kanam. objectif yi cette saison daal. absolument absolument d' accord bu ma ñëwee ci objectif yi rek li ma li ma la waxoon sànq la rek xam nga bu dee am nga ressource humaine boo xam ne de qualité la nga am loo xamante ni aussi population bi ñoom ñëpp porté nañu porté nañu enga même engagement am nañu même engagement ci benn point boo xam ni cadre boo xam ni ñëpp ku ne yaa ngi gis sa bopp déjà c' est un départ boo xamante ni lu baax lay doon bon ba tax na avec les deux victoires aussi dañ avons sant yàlla ndax à rek moom nous avons commencé à travailler depuis deux mois ñu avons commencé à mun commencé amul équipe au niveau de la commencé Nous avons commencé entraînement kon dañoo peut-être loolu chance qualité de ressources humaines

di woo toute la population de Dakar ak Mbourkat ñu ñëw autour de l'équipe équipe jàpp ci te xam dañuy dogo dor door dañuy doog commencé té li reste ci kanam bëri kon nañ ci japp ak nuñ ci mënti jappé nañ jéem a fexe nañ lañ ci jappé di wax aussi que ni rek bon bu dé félicitations dañuy féliciter toutes les bonnes volontés yi nga xamni ñoo ngi dund Dakar 2 ak Mbourkat nga xamni depuis bi ñu commencé ba légui nelaw nelawatuñu toogatuñu ñoo ngi jàppale ci mooy côté bu nekk nag ci coté financier côté matériel côté lépp dem na ki ba monsieur le préfet mu jox rek macha allah keroog deux jours de mois démb rek laa ko recevoir vraiment ñu ko ci ñu ko ciy euh, la madame honorable député Maïmouna Sène ñu ngi koy remercier ndax tey ji buntu këram la ñu kon ak ñeneen ñi nga xamante ni ku mel ni monsieur Sisco monsieur Soxo policier euh, monsieur Abdou Khadir Gueye ñoom ñoo ñëpp nekk ci koñ bi ah Alé Fall ñoom ñëpp di ki jàpp vraiment c'est des choses yoo xamante vraiment ça ça nous fait plaisir et dinañ gën a yokk jom te dégg nañu conseil ñu joxé aussi pour que jeunes yi jàpp ci loolu équipe bi mën a jëm kanam vraiment daal toute la population de Mbour et de Dakar 2 ñoo ngi leen di remercier di leen wax ne gëna japp et jàpp te ndam rek ndam rek ti kaw ci kanam quoi. merci beaucoup jaajëf merci beaucoup. si li ma yor maa fi ne tëjee seen làmmiñu perroquet international nekk si nangul ma sa ma koy nangul nangul nangul li ma doon dem saaga day da ngay jëm aywa aywa kaay wala dem sa balas ñëpp dem woowee baay si boo si boo demal toog follow TikTok benn dëkk ñaari gaar Cees kaay maa koy yëngal maa koy pëndal jàpp rapport yëpp sël ku ma sopp booy di nga gën nangul nangul maa fi buur talu ma leen damay leen ko suuf ñëwal ñëwal may toj mar ne bam saf te fi ful bool bi ne ma fi tàq raam ba tegu gis ñu dafay jaay jàpp liggéeyu lay anecdote ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga présenté wu tur bi ak sant bi ak fonction bi nga occupé ci équipe bi. waaw man maay euh, coach man maay euh, coach équipe bu Mbour 4 dek centre découverte foot en même temps voilà alors coach Galo ginaaw biñu ñëw donc euh, ñu gis ni quatre équipe bu bess la voilà donc euh, mu ñëw commencé def ay exploit te demagul fenn euh, tay dañuy ñëw d'abord yow lan mo la motiver ba nga jël ASC bi nek coach bi wala ba nga nek membre staff technique. waaw avant tout man ci koñ bi la dëkk donc lolo ta lolo gëna motiver pour ma ñëw parce que gaay bu ñuy créer équipe bi dañ ma seet te nit ki bu ñu la seetsee sa biir koñ amoo lu dul euh, jàppale sa koñ loolu mooy premier objectif bi moo loolu ma gën a motiver pour ma ñëw jàpp ci équipe bi. waaw équipe bi ñu ngi def ay espoir mais ba léegi des na daal parce que dañuy door a def it xëy na gars yi sóoraale mais ñun équipe bi comme gars yi li ñuy wax rek équipe bu bees la mais équipe bu bees bi tour la rek mais les jours qui jouent là-bas du ñu ay euh, joueurs yu bees ay euh, joueurs yu joué la. ba pare tamit éducateurs yi entraîneurs yi fa nek tamit ñu ngi ci métier terrain yi lolo gëna tax exploit bi am. alors ci début bi euh, à la base bi ngeen di démarrer seen saison recrutement bi ci yan base ngeen ko defee puis da ngeen a basé wu def focus ñi nek koñ bi da ngeen a renforcer da ngeen a dem ailleurs wala yow en tant que entraîneur da nga ñëw léegi fekk nga liggéey ñoom wala yow yaa chargé woon recrutement bi la ñu mën a wax ci côté boobu. waaw mën naa ne recruter wuñ nag dañoo jël basé wu ci ossature bi ne ci koñ bi. bon peut-être poste yi nga xamante ne xaw naa manqué tuuti ñu dem uti ko mais nekkul joueurs yoo xam ne dañ leen a di leen fay booy yi nekk sama centre bi lañ andi ak ñi nekk ci yeneen centre yi dëkk centre yi nekk ci koñ bi ñu dem waxtaan ak ñoom ñu ñëw jàpp ci équipe bi mais recruter wuñ benn joueur. waa ji nee na euh, far nañ ci wooyu bay que ni bi ngeen commencé seen i séance euh, bientôt deux mois pratiquement deux mois bokk ngeen quasiment ci équipe yi njëkk a commencé entraîner fii ci Thiès est ce que yow euh, sur le plan technique ou tactique est ce que mën nañ wax ni mayonnaise bi jël na forme est ce que mën nañ wax ni machine bi huilé na wala dese na le temps pour li nga bëgg dëgg-dëgg nga am ko waaw il fallait ñu teel a commencé parce que équipe la boo xamante ne dañuy door a débuter pour ñu commencer il faut pour ñu am li ñu bëgg il faut ñu teel a commencer mën a jël bu yenn boo yi nga xamante ne nekk ñu di compétir pour mën leen a mettre dans de très bonnes conditions non mayonnaise bi des na des na peut-être dañu kii rek équipe bi dañuy dafa bëri boo xam dañuy compétir li nga bëgg jouer pour leen ko expliquer dañ koy comprendre bon mais des na daal war nañoo liggéeyaat lu bëree bëri bëri. alors donc ñaari match nga joué ñaari victoire dëgmal ay 16e de finale est-ce que par rapport ak sa euh, bu ñu ko comparé premier match bi deuxième match premier match bi lu taxoon ma xaw a métti tuuti eh, dañoo am booy dañoo amoon pression mais deuxième match bi dañoo bàyyi pression bi dafa ñu ko bàyyi fule ñëw ñu concentré si li ñu liggéey entraînement ñu ñëw wane ko malgré teel nañoo jël but mais bi ñu mitaayee bi ñu waxtaanee ak booy ñoom ñëwaat nañ andi seen séance yi li ñuy def entraînement ñu repete ko accéléré jeu bi loolu moo ñu may pour ñu dem jëli escore bi pour gagner.

li dess moy ñu liggéey côté offensif bi tamit ba ñu am ki ti mëna duggal waaw loolu la dal merci beaucoup coach okay, merci merci Assalamu alaikum, maa ngi leen di nuyu di leen euh, je me présente en tant que joueur. Maa ngi tudd Babacar Sagna, joueur Mbourkat. 4. Ah, ren la dore a débuté ASC tamit ren lañ ma wo waaw. Ah, Babacar Mbour 3 nekk eh, équipe bu bees Mbour 4 du moins eh, est-ce que ci koñ nga dëkkoon wala fa nga dëkk ba légui dafa am foo mosoon jé ta da ngay ñëw fi lan mo la motivé ba première année Mbour 4 nga ñëw eh, bok ci équipe bi. non dëkkuma ci koñ bi tout récemment daaw fi ñëw té ben équipe mo fi andi muy équipe championnat muy mbahan. taf lañ koy woyé Thiès Academy foot waaw mo fi andi mom la ñëw pour compétir tamit dès que ci koñ bi sama ben tuteuse mo fi nekk waaw d'après amna ben tournoi bu ñu doon jouer fii ci koñ bi pour rassembler joueurs yu nekk ci koñ bi rien que pour ñu ñëw japp ci ASC bi loolu moo ma pour ma gëna a motiver ci ASC bi alors bi nga fi ñëwee noo gisee environnement bi atmosphère bi sa coéquipier dirigeant yi et voilà. waaw fu mu nekk ni kay sant yàlla laa mën a wax ñoo ngi sant yàlla bu wér a wér a wér a wér waaw ndax lu ci bëri dañoo dañoo jiital ñu ne leen fii koñ bi yéen ko moom yéen ko moom yéen ko moom loolu kese lañu wax agum pour l'instant. jot ngeen def ñaari match ñaari victoire exploit bi boo ñu ci doon dellusiwaat daal lu ko waral ak naka ngeen def ba. Euh, ñëw pour la première fois seen deux loolu di ko sant yàlla rek lépp yàlla la te lépp ñu ngi koy toog tamit ci loxo yàlla waaw liggéey coach yi la rek ak dirigeant yi ñoom ñoo ci gën a jàpp tamit waaw ak supporters yi di tout xama mooy lool ndax bu nekkoon jour yi kese kase kase kese kese kese waaw ASC bi moom du mën a dox franchement parler waaw. objectif cette saison jël coupe rek coupe du maire ak nawetaan waaw yóbbu ASC bi fu sori. yóbbu ASC fu sore sore Babacar Sagna. Babacar Sagna Babacar Sagna waaw. jaajëf Babacar. ok. salaamaaleykum maa di nuyu ya, ya, di rafetlu man la Lamine Badji gën ma waaw. alors Lamine nga nekk euh, bokk ci biir ASC e bi muy ASC Mbour 4 bu bees. Mhm. dañu mën a wax ci doxalinu équipe bi yéen en tant que dirigeant. <coughs> Euh, ban taxawaay ngeen am ci équipe bi et puis lan la euh, koñ bi di xaar ci waaw en fait lu koñ bi di xaar si ñun bëri na te ñu ngi si tànk yooyu ndax koñ bi dañoo bëgg bokk ren def ci lu bees loo xam ne kenn musta def si nawetaan lañu bëgg a def maanaam mooy ñëw ravager lépp.

waaw sant yàlla te am nañ ci yaakaar bu baax a baax di si waaw. deux matchs deux victoires mhm. c'est pas évident. waaw deux matchs deux victoires du lu yomb surtout ay surtout ay c'est bu bess c'est pas facile nga ñëw première année deux matchs deux victoires té équipe yi ñu dajal doo dee xool équipe bi mag la ñu dajal ah. équipe yi ndaw waaw ndax gaay fu ñu doon sento gaay yi bëri waxé waxee dañu naan bu yow ngeen préparé andalé sen saaku xam da nga jël bëri mais nak gis nga ay mbiru yàlla daal kenn xamul yalla suñu borom bi rek xam moo ñun dal lepp dañ ko jor rek teg ko ci lox yalla suñu borom bi di liggéey dal bo lañ ci wax loolu moy suñu objectif quoi. bi fi ñëwé ñun dafa am luñu fi impressionné luñu fi remarquer moy engagement ak détermination ak l'envie ci mhm. visage joueurs yi lan ngeen sekk ak joueurs yi ba ñom à l'entraînement dañu melni ku nekk ci match quoi. waaw en fait do dee xol ñi doomu doomu koñ bi la doomu koñ bi rek a fi nekk ah dañu bëgg lu def gëm lu def xam ne tey

fàcc bi waaw fàcc raaj ñun àjjana la ñuy dund ah lépp àjjana la ah fàcc raaj zéro pression no stress la ñuy dund ah voilà moom la ñuy dund ah. wax sa kàddu gu waaw <clears throat> en fait di remercier ñëpp ndax gis nañ taxawaay bi mbuurkat doo fi ñëwee da naan koñ bu tëju la mais c'est le contraire en fait parce que soo dee xool ñëpp jàpp si ay ba ah. muy mag ba ci ku gën a ndaw ñëpp jàpp si ASC bi soo dee xool tey sax entraînement gars yi sax ñëwuñu mais da doon fees dell en fait ñëpp gars yi dañ koo bëgg te dañ koo gëm. vraiment di remercier wa koñ bi gis nañ sen taxaway vraiment gis nañ sen taxaway rafet na lool té loolu moy ASC loolu moy jëmmal ASC loolu moy may doole ASC té lépp lo xamante ne laaj nawetaan bi laaj na koñ bi ñu ngi ci ñu ngi ci té inshallah fiex ci kanam li ngeen gis yeneen facette du bees inshallah allah du si yàlla andee. jërë jëf vraiment content na jaajëf rafetlu sen teewaay jaa ngeen jëf. Euh, madame ñu baare d'abord nga présenté wu. Ah, alaykum euh man la mam Yacine Soumaré.

ci li nga xam ne moom la ñu dénk. waaw responsabilité vraiment dama si honorifié wu si de la part de l'ASC parce que ils m'ont nommé que nekkuma fa sax ñu nommé ma ko di mu nekk honneur si man euh, confiance boobu ñu am ba fal ma ko. peut-être comme nu ma nekkee si quartier bi comme sa deuxième question ma nekk si développement bi depuis plus de quinze ans maa ngi fi dëkk euh, nekk si développement quartier bi def te yàlla tax euh, pour suñu ndaw ndaw yi ëllëg. pour s'en réussite moo tax ñu nekk ci quartier bi nekk développement xëy ci si cadre boobu la ñu ñu gis ma falma c'est en euh, commission boobu en tant que aussi sage-femme d'État et technicienne supérieure en enseignement administration santé nekkon ci poste de santé Mboutoua euh, ma ubbi maternité bi def fa huit ans euh, di def ay consultation gratuite ak activité autre activité avec les femmes et autres agriculture et autres motax tax tam ñu jël ma falma pour ma ànd ak ñoom si liggéey bi ma lu ko bu baaxa baaxa baax

chaque fois nous organisons des consultations des suivi des sensibilisation euh, pour toute la population kon ASC bi su comme ils ont besoin d'avoir un bien-être physique et mental donc il y a une nécessité de les suivre pour leur santé Nous ici, ci nous avons les règles, rek laay président yu manqué ci pour nous renforcer en même temps am nañu ay médecins yo xamni ñu ngi dëkk fi tamit di ñu jappalé di au passage di remercier docteur Ngom ci consultation médicale yu mu leen di defal euh té xamna dañ koy pérenniser au moins chaque mois ñu leen di defal consultation de suivi pour xol s'en sen wér yaram comme ça en cas de euh, euh, quelque chose qui va mal avec la santé ñu del ci jóg pour la prévention euh, egg feneen donc ñu ngi ci ci commission bi ñu ngi ci ñu ngi pour l'ASC ñu ngi pour toute la population aussi parce que ASC bi yemul rek si football bi. waaw c'est pour toute la c'est tout c'est tout le quartier c'est toute la population Donc c'est ndaw yi ba si màgget yi. sa nekkin ak ñoom nga ñëw euh, say góor say caamiñ nga nekk ak ñoom ci ASC bi depuis que nga intégré ci euh, bureau bi ba léegi donc ñoo gisee taxawaay bi ak ñi ko vraiment damay gis ñoom ñoom dañ may gën a encourager sax parce que c'est des qui sont tellement engagés donc ñu soo gisee nu ñuy taxawee président Kader ñu ngi tout le temps une est en réunion on communique il appelle ñu ñëw ñu am si ay sages yoo les anciens ñoom ñëpp nekk si jàpp si vraiment yow tamit da ngay am envie gën a jàpp gën a liggéey gën a liggéey donc euh, taxawaay bi vraiment rafet na di woo tamit ñëpp. parce que les quartiers nous ñun ñëpp pas bokk kër bu nekk ndaw bu nekk war na soobu si parce que c'est pas le football aussi seulement mais c'est le développement du quartier dans tous les secteurs de développement kon ñëpp si war a ñëw jàpp. merci beaucoup madame merci.